parti kese makisal xam na ni ñoo ko ëpp doole foofu ci réew mi li xew keroog ñépp ko gisandoo mooy ne forcé Ousmane ko dina dem tribunal ci jamono joo xam ne amul benn luwaa ci dëkk bi du constitution du loi boo xam ne nee na ci genre dossier bi farata la ci man ma teew tribunal bu ma sooboon sax ma ne deew ma tribunal lu tee procès ba am juge bi àtte nu mu ko nu ko neexee li ñuy wax jugement par défaut kon amul lenn lu mën a justifier ci dossier boo xam ne correctionnel la nga ne forcé rek dinaa wañ loxo nit yóbbu ko tribunal ba tax nga toj otoom ba tax nga gaañ ko waaye li gën a garaaw nga jël produit boo xam ne ñëpp xam nañ ni produit toxique la mooy produit boo xam ne lu mën a gaañ nit la lu mun a def jombe yu bari la ci wér-gu-yaramu nit jàkkaarloog moom pomp ko ko ci kanam ci bët noqiloo ko ko te problème boobu mun a am lu bari lu mu yàq ci wér yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yére bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci Sénégal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni lool la ci benn produit boo xam ne euh, agent anti-émeute la yu ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bari lu mun a def ci santé ci lu war jëm ci mbirum bët ci dem di ci mbirum nokki ak poumon ci dem ci li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog biñ ma ko defee ca saasa de métti woon na lool ci bët yi ak ci not noqi bi waaye bi ñu eggee kër gi ci ngoon leneen ak leneen yokk na ci amoon nañu ay douleur ci biir bi amoon nañu yeneen ak yeneen douleur ba tax ñu ne faw rek ñu dem hôpital ñu xool ñu waaye Sénégal yëpp gis nañ ni bi ambulance jógee fii di dem dañoo lànk ni ambulance bi du yegg ci sama kër il a fallu samay avocat seen boppu ñëw dugg ci biir avocat euh, ambulance bi ànd ak ambulance pour ambulance mun a yegg ci sama kër moo tax ma ne tentative d'assassinat la mooy pexe la pour faat suñu bakkan te du pexe bu jiitu te gëmm yi dina doon pexe bu mujj ñi ngi sant yàlla nag ndax bi ñu dugg see fii ci clinique ba léegi wax dëgg yàlla macha allah dañ fee fekk personnel médical bu mat lañ ko doyee samay médecin bopp déplacé wu nañu jóge seeni cabinet spécialité bu nekk ñi nga xam ne ñoo ma ciy suivre ñëw nañu fii def seen liggéey niñ ko war a defee ànd ak ñi ñu fekk fii ci clinique bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant njàqare boobu nag am moo tax sénégalais yu bëri tuddoon mbirum évacuation sanitaire mooy nañ ma génn réew mi pour ma dem xooli sama yaram bitim réew ñi ko wax ñëpp nag doore ko ñi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk fare ci parti bi waa bureau politique bi ak militant yi ñi nga xam ne suñuy allier lañu ci wàllu politique ñi nga xam ne ci société civile bi lañu bokk ñi nga xam ne ci mouvement citoyen lañu bokk ak ñeneen ak ñeneen ñi ko wax ñëpp ñoo ngi leen gërëm leen sant ndax xam naa ni njàqare moo tax ñu wax ko waaye ñeewantu moo tax ñu wax ko humanisme moo tax ñu wax ko ñu leen di gërëm waaye ñu ngi sant yàlla ndax nee naa ñun dañoo mës a wóolu ci bépp fànn ñi nga xam ne ñoom la ci seen xam-xam màcc te ñu nekk ci biir réew mi moo tax fii lañu ñu mës a fajoo ci lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñooñu liggéey bi ñuy def ñu ngi koy def ñu ngay xaar ba dajale lépp ci résultat yi bu dee ñoom jàpp nañ ni laaj na loolu dinañ ko xool waaye tembe fi ñu toll nii loolu du farata ci ñun du farata ñun fii lekk rek ñu ngi mën a faju fii ci biir réew mi li ñu mënul def fii mooy analyse yi nga xam ne amuñu jumtukaay yi yónnee nañ ko bitim réew ba xam produit yooyu lan la buñ ko xamee it liñ ci war a def ci wàllu wér-gu-yaram ak ci wàllu yoon dinañ ko def ba mat sëkk moo tax xalaatuñu ni jamono ji jàmp na wala farata pour ñu génn dégg nañ sax ñi féete ci nguur gi naan ay waxu évacuation sanitaire ba naan ay expertise ak contre expertise amaana ñoom évacuation sanitaire lu leen di arrangé la man de ci sama jëmm bopp sàkkuma ko doxuma ko bokk na ci li tax mooy li ma njëkk a wax mooy fii léeg ñii nekk fii Sénégal yor paj mi ci wàllu biir ci wàllu bët ci wàllu euh, xol ci wàllu poumon ak yeneen wàll ñu ngay def li ñuy def te jàpp nañ ne war nañ ko mën def dañuy sant yàlla dénk leen suñu bopp ñaareel bi mooy ci wàllu politique ñun dañoo jàpp ni combat bi fii la biir senegal te bu ñu fàttee mukk ni saa su jëmm jaaxalee nguur ba xamul nu muy def ak moom day fexe ba génne ko ci réew ma moo tax noonu lañu génne woon yonent yi ci seeni dëkk noonu la ñu génne woon mag ñu baax ñi doon résister yépp ci seeni dëkk fu nguur mu sa jaaxle ba xamul lu muy def ak nit rek day fexe ba mu génn dëkk bi te ñaare boo xasee ba génn dëkk bi mun nañu jafeel dellusi bi ci biir réew mi moo tax nun duñu génn réew mi komba bi fii la ñu bokk kook ñuy xeex ñépp ma jiital ci ndaw ñi ak seen taxawaay bi nga xam ne mënuma koo natt ci njàmbarte boole ci mag ñi nga xam ne mënuñoo génn xeex waaye ñi nga toog fi ñuy toog di encourager ak di ñaan boole ci mbooleem seen citoyen yi nga xam ne saa su ma jógee sax di déplacé wu naan maa ngi dem tribunal wala maa ngi dem mitin foo romb yoon boo romb ñëpp ngi taxaw ci balcon yi di la tàccu ak di la encourager xeex bi fii la te li ci des bëreetul duma leen bàyyil réew mi naan maa ngi génn bitim réew loolu rek lañu yàkkamti te bis buñ ko defee dinañu yeggali seen liggéey mooy xool nu ñuy doggalee li fi nekk ci résistance xool nu ñuy def ba cibler ñi ñu war a cibler moo tax fii lañuy toog ak ñoom di jëflanteeg ñoom di jàmmarloog ñoom di xeex ak ñoom ba keroog ñu jëlee fi Macky Sall ak système am bii nga xam ne baaxul ci Sénégal ñi ngi nag ci situation boo xam ne weer wu nekk semaine bu nekk bés bu nekk dafa am solom xeex boo gis bu mu bu mus defar société définitivement cappaandaw gi mooy gën a métti lépp te foofu lañu ñu toll waaye suñu gëmee suñu bopp dëggal suñu bopp gën a takku li nga xam ne mooy mottali xeex bi soreetul li ma ci jàngat bëri na ci dinaa ci dellusi lii nga xam ne nag def nañ ko nee naa Macky Sall na waajal bu dee mën na jël bakkanu Ousmane Sonko na ko jël bu dee mën na jël bakkanu ay million de sénégalais na ko jël ndax leen liñ ko bañaloon bii paa bañaloon ko ko baye weesu moom lañ koy bañalaat rek beneen yoon mooy du ma mus a forcé ci loo xam ne du farata ci man sax ma dem wuyu ji du ma mus a ban yoon laa war a jaar ak naka laa fa war a jaare moo tax ñun ñëpp nañu takku waajal étape yi nga xam ne ci lañu jëm la ca des nag mooy dox taxaw def seetlu yu ndaw ak gëna a ñi nga xam ne ñoo taxaw mu ngir xeex te gëm ni majorité sénégalais yi la kenn ku nekk ak ni ngay xeexee li ma ci njëkk a jàngat mooy li xew diggante di 16 ak tey jàngat bi ñu ci war a njëkk a jàngat mooy askan bu taxaw taxaw jonn fas yéene jàkkarloo ak nguur goo xam ne nguur gu mànduwul la nguur gu dëng la nguur guy jaay doole la nguur gu bugg a faagagal askanam la nguur gu bugg imposé imposer dictature la askan gu mujj mu musa taxaw te dëggal boppam amul askan bu xaj ci nguuram amul ndax nag waxoon na ni li fi amoon du fi amaat man jàpp naa ni lu raw li fi amoon am na te nag du lu ñuy bàkk wala lu ñuy rafetlu ndax li yàqu ci réew mi bëri na li ñu taal ci réew mi bëri na lii lépp mënoon na ñàkk waaye liñ ciy jàngat rek mooy askan gu taxaw ne du ma nangu bu mu njaam gi nga xam ne jógewul bitim réew bii paa waaye biir réew mi lañ ñu ko bëgg a yeewee askan wu taxaw rek xajul ci nguur ñu leen ciy jaajëfal ci seen taxawaay waaye it di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ ci ab mbokk di dellu masawaat it ñi nga xam ne am na lang yu réy luñ ci topp yu leen yu leen jural loolu nag ci nguuru makki Sall la amee rey nit yomb na leen loolu tey rek gis ngeen fële ci na war nañ leen ay image yoo xam ne nit mënu ko jàkkaarlook moom xool ko te du am lu wàññi ko ci moom muy alkaati yu jël balu fital dóor ko ci bopp ab xale boo xam ne da doon manifester yorul lu dul ay xeer loolu mooy nguuru Macky Sall te loolu day ñëw yokk ci yeneen ak yeneen yi nga xam ne faat na leen diggante mars 2021 ak léegi te àdduna bi yëpp gis ko ba département d'état américain def ci rapport euh, ay organu Nations Unies def ci rapport ñu koy wax nag ni su mujjewul CPI dina mujje fii ci ay juridiction Sénégal mu war a layoo nag ci bakkan yi mu faat lu ak loraange yi nga xam ne teg na ko ci Sénégalais yi lii yokk ci mbirum milice yi ñëpp gis ko ay nit yu mu jël ñu leen di jaxaseek police bi ñi ñu jox leen ay yat ñi ñu jox leen ay jaasi ñenn ñi nag ñu jox leen ay fetal ak ay grenade lacrymogène loolu jaaxalul sénégalais yi jaaxalul ndaw ñi ndax fi ñu toll kenn ku ne xam na li ko mbir mu jaral may gën a soññaat ndaw ñi di leen encourager ne leen nag milice yooyu na ngeen jàkkaarloog ñoom te ku ngeen ci jàpp yi xam ngeen li ngeen def ak moom parce que kenn du fi joxe boppam ñu sacrifier ko ci caaxaan di massawu ñi nga xam ne gaañu nañ si waaye di massawu it ñi nga xam ne tey teg nañ leen loxo du lu ñuy rafetlu waaye yeew yeeweeku boo gis ci aw askan dafa am fu mu jaar dafa am ay sacrifice yu mu laaj man mii de Ousmane sonk nee naa leen sacrifice buy am man maa si jiitu parce que jaral na ma lu ne jaral na ma sama bakkan bi waaye suñu réew bu ñu ratee rendez-vous bi dina jafe trop ñu dabuwaat loolu moo tax kuy xeex rek yow ndaw mi yaa ci war a jiitu ñëpp ndax sa avenir la à court terme à moyen terme et à long terme ndax àdduna bi xaaratuñu te mënatoo dem Europe mënatoo dem Amérique te sa réew am nga fi loo xam ne buñ ko tegoon ci yoon nga am naataange ba faw kon bul nangu ñi la naan yaa fay perte li ñu la naan jaru ko ñi la naan ragalal bul ko nangu mukk sa avenir moo nekk en te mën nga am li nga bëgg yëpp ci biir réew mi yow liggéeykat bi mën nga ko am yow transporteur mën nga ko am yow baykat bi mën nga ko am yow keneen ak keneen su ma limee rek mën naa lim secteur yëpp kon amul lu war a tax ñu deltu gannaaw ñaareel bi mooy ñun ñëpp ñu xam ni bi ñu door rek léegi la ñu sacrifié bëri na ñaata nit la si jëf seen bakkan rot ñaata nit lañ ci gaañ ñaata nit lañ ci tëj kaso est-ce que ñun am nañu droit dellu gannaaw est-ce que am nañu droit di def ay calcul fi mu toll nii nee naa leen xeex fi mu gën a fa la victoire